mbégte sentiment mbégte rek ak réconfort suñu xel gën a dal bi ñu gisee liñ fi liñ fi gis yëpp donc jot nañ def tour bi et puis euh, di commencer d'abord par remercier Sonatel ci initiative bi parce que journée bi ñuy waaj a célébrer muy la journée mondiale des télécoms et de la société de l'information journée la boo xam ne c'est symbolique et c'est institué depuis euh, 2005 euh, mais origine bi comme ni ma ko waxee sànq c'est depuis 1865 alors donc bu ñu demee ba am donc un partenaire euh, aussi stratégique un acteur vraiment fort du secteur euh, jël ay initiative pour célébrer accompagner État du Sénégal ak ministère bi pour célébrer justement journée bi nii du ñu def lu dul bég si et puis di leen si remercier te liñ fi jot a gis dal na xel comme ni ma ko waxee parce que gis nañ fi. Euh, vraiment ay innovation yu bari yoo xam ne yu ci bari tamit euh, dafa euh, lëkkaloo ak thème bi nga xam ni moom lañ choisir année bii ni muy l'innovation numérique au service du développement durable. donc lu ñu def lu dul remercier encore une fois waa Sonatel di leen encourager aussi di encourager tamit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de faire pareil def comme ñoom donc jël ay yu mel nii pour Sénégal. turam gën a continuer di law ci lu jëm ci wàllu numérique à travers le monde et ñu gën ko renforcer.